di wax ni am na mbégte bu baax a baax di teew si baax a baax plateau bi. Mm-hmm. Euh, teewoon nga fii ñu doon waxtaanee seen situation ay euh, ay weer ci ginnaaw mais jamono ji dafa mel ni amul évolution depuis bi nga xamee ni euh, daal di leen leen di génnee ndax mbirum payoor donc est-ce que mën nga ci dellu si waat ñu xam situation bi fan la toll jamono ji ak lu ci autorité yi def. waaw damay kontaan loolu si question bi nga posé mais soo ma ko mayee rek ma def benn rappel bu ndaw. parce que fii ñu toll c'est pas une première ñuy dàq les étudiants dans les universités privées suñu fàttali ko état du Sénégal nii qu'on s'est orienté les étudiants depuis 2013 2013 ba 2018 état du Sénégal si la 2018 si la gëj a orienté ay étudiants mais soo xoolee 2013 ba 2018 état du Sénégal orienté na dans les universités privées lu toll si 47 000 étudiants au niveau national. Mm-hmm. soo xoolee soo jëlee rek nu nga xam ne mu mujjee di 2018. 2018 rek lu nekkoon si université yi tollu woon na si 25000 25000 yooyu ñoo ngi nekkoon si 91 université privé yoo xam ñoo nekk d' abord am ñu nekk dakaar am ñu nekk Kees Ziguinchor Saint-Louis comme Kaolack tey soo xoolee 25 25000 yooyu am na lu nga xam ne wàññeeku nañu bu baax a baax si année scolaire 2019 2020. Mm. ndax soo xoolee année scolaire 2019 2020 étudiants yi ñoo ngi tolloon si 6800. nga ñëw année scolaire bi nekk 2020 2021 étudiants yi ñoo ngi toll si euh, actuellement moins de 10 000 étudiants au niveau national soo xoolee lan moo war a étudiants yi di wàññeeku mooy 2018 euh, 2019 état du Sénégal fi yor loon dette bu toll si 9 milliards 9 euh, milliards 100 millions fayu ko étudiants yi si bëri si bëri si ñoom ñu leen daan dàq mais itam condition yi nga xam ne ñuy jàngi daan si si privé favorable pour ñu nga xam moo mooy étudiants yi mun a rester d' abord mën a continuer seen étude nga topp année scolaire 2019 2020 étudiants yi ñu wàññeekuwaat toll si 16800 au niveau national état du Sénégal dette bi ba léegi mi ngi yokkuwaat ndax foofu année scolaire 2019 2020 état du Sénégal mi ngi yore lu toll woon euh, si 6 milliards 800 millions établissement privé yi nga toll tey année scolaire bi ñu nekk 2020 2021 état du Sénégal mi ngi yore plus d' 1 milliard établissement privé yi ba léegi mënu gu leen ko fay looloo def tey somme boobu dette bi toll si 16 milliards état du Sénégal ba léegi fii ñu toll nii. jàpp na ni dette bi ak fu mu toll amul lenn loo xam ne autorités yi jéem nañ ko si looloo tax tey fi mu toll établissement privé yi waa KIDOPES ñu nga xam ne ñoom nooy yor cadre bu nga xam ñoom nooy les chefs de les chefs d'établissement privé ñu mujjee dàq les étudiants privés parce que tout simplement dañu bëgg état du Sénégal fay lu nga xam mooy dette boobu. Mm-hmm. Euh, jamono ji yéen kon mën nañ jàpp ne euh, ça depuis lors euh, defu leen respecté wu leen seen études yi c'est-à-dire leen ci yi. Euh, comme euh, il se doit. effectivement mënoon ko waxee loolu parce que fu mu toll nii. déjà combien de mois. actuellement mënoon jàpp ni depuis su fekkee ni renvoi bu mujj bi la boobu mi ngi am le 17 le le 17 août la am mardi le 17 août te loolu dàq tous les étudiants orientés dans le privé par l'État du Sénégal bien sûr. 17 août tey soo xoolee léegi ñuy war euh, suba lay am deux semaines boobu ñu dàqee les étudiants du privé mais loolu ba mu amee c'est pas une avant même les chefs de l'enseignement privé di dàq les étudiants dans les universités privées ñoom lu ñu njëkkoon def mooy étudiants yu nga xam ne pare woon d' abord seen ay seen formation ñoom dañu jëloon option boo xam ne dañ ni woon tant que état du Sénégal fayul dette bi étudiant bu si pare itam sa formation kenn du la jox loo xam mooy si diplôme. mën nañ jël exemple suñu camarades yu nekk dans l' de du Sahel ñooñu plus de plus de 200 euh, étudiants pare nañ bu yàgg seen licence mais ba léegi mënaguñu jot seen diplôme. parce que état du Sénégal fayagul det boobu ñu jàpp ni itam ay menaces la woon mais actuellement jàpp na ni ay actes yu la yoo xam ni chef de classement privé yi ñoo ngi koy jël di te étudiants yi rek ñu mën a en fait te depuis nu nga xam itam renvoyé am na amul benn communiqué wala benn acte boo xam ne jàpp nañu concrètement dafay jóge si état du Sénégal justement pour solutionner définitivement le calvaire des étudiants du privé tey loolu ñuy déploré ñun ñu jàpp ni ay res ay nit ñoo xam ni ak ñu responsable nan donte nag ay étudiant nan parce que dañoo jàpp ni posture bu nga xam ne moo doon jàpp étudiant mooy yàqkat la war a doon ñi koo xam ne dafa war a nekk itam euh, de barrer route ba ak yu mel noonu ñu jàpp ni ñu daan nekk ay nit ñoo xam ne si si dëkk bi nañu bokk fii nañu dëkkee amul lu dul Sénégal donc lu nga xam ne moom noonu mérité jàpp nañ ko mu may respect ak considération bu nga xam ne moom war a jógee d' abord si autorités yi ñëw si euh, ñëw si chef d'établissement privé yi mu jógewaat si chef d'établissement privé yi ñëw si étudiants yi mais loolu respect boobu ak considération boobu jàpp leen ni na bu baax a baax. te réellement yaakaar ngeen ni mën na euh, mën nañ ko résoudre euh, fii léegi fan en tout cas pour yéen délai bi ngeen xamante ni moom ngeen ja yaakaar ne ci lañ ko war a résoudre yaakaar ngeen ni réellement les autorités vont réagir est-ce que est-ce que aussi jot nañ euh, au moins réagir ci seen benn manifestation wala loo xamante ni en tout cas interpellation la. bon asuñ dañuy jàpp ni rek su fekkee par exemple dañu tollu ci 10 mille jeunes yoo xam ne dañu nekk si dëkk bi. ñuy ay doom ñoo xam ne suñuy parent fi noonu nekkee si dëkk bi amul lu Sénégal tey état du Sénégal moom moo jëloo ay engagement dans les universités privées ni état du Sénégal moo jëloo ay engagement orienté des étudiants dans les universités privées kon état du Sénégal dès l'instant que moom amul idée boobu idée bu baaxoon la waxoon nañ ko waxaat ko tey su fekkee ni état du Sénégal dafa jël ay jeunes te dëkk bi ak fu mu toll ñu soxla lan ay jeunes yu qualifiés ñoo xam ne dañuy jàpp ne suñu administration d' abord daan ko mën a doxal mais itam lépp lu nga xam ne gestion la boo xam ne dina nekk si dëkk bi dinañ am d' abord ay jeunes yu ni d' abord daan a gérer poste yooyu su ko defee nga xam daan mën redresser lépp lu nga xam ne en tout cas jàpp na dafa daan woon mm-hmm. te su fekkee ni état Sénégal xalaat boobu moo amoon loolu dañ ñëw concrètement ñu concrétiser ko accompagner d' abord mais itam accord yu nga xam ne moom état du Sénégal signé woon avec les chefs de l'assemblée privée mu respecté woon ko jàpp naa ne tey question boobu du fa am place. Mm-hmm. parce que pourquoi mooy que su fekkoon au début état du Sénégal accord yu nga ne moom la signé woon avec les chefs de l'assemblée privée bis bu fekkoon honoré woon na d' abord engagement kenn tollu fii mais jàpp na ne ñun état du Sénégal ak état bu mu mën doon tant que dem nañu ba kilifa yi jël seen ay kàddu joxe ko ba signé jàpp na ne loolu war na ko mën moo tax bu jëloon engagement yooyu. donc suñu demee tey ba toll fii ñu toll ñu jël ay étudiants di leen dàq ay étudiants am seen buus ak aide sociale kenn mënu leen ko jox ay étudiants tey dem ba pare seen ay formation kenn mënu leen jox seen i diplôme jàpp na ni loolu kenn du responsable bi ku du état de Sénégal te ñun mën nañu jàpp ni ñu ko suñu yeneen morom yi di defee mën nañu ko defee noonu gën nañu organiser gën nañu déterminer wu mais danoo xam ne rek dëkku loi nañu nekk mm-hmm. lu nga xam ne moom moo jiitu mooy ba exclusion yi amee lu ñu njëkk def mooy d'abord woote point de presse expliquer woo ñu nga xam ne itam moom média bi waxtaan ak ñoom wax leen lu nga xam itam mooy wax leen d' abord problème bi comme ni ñu expliqué fii yi ñoom ñoo a xam bu baax baax lu xew ñu que dañu jàpp nga xam ni moom mooy d' abord suñuy parents yi ñoom si dëkk bi lañ dëkkee war nañu xam bu baax moo xew lan moo leen dàq ak looloo tax ñu organiser d' abord point de presse boobu pour informer d' abord itam mais depuis ñu def loolu amul benn réaction boo xam ne na d' abord si autorités yi depuis am na itam ay plateau yoo xam ne def nañ ko mais itam am na ay rencontre yoo xam ne indi amal nañ ko le préfet de Dakar monsieur Djibi Diallo dañ koy nuyu bu baax baax di ko saluer moom dañ ko contacter rek ñu ko d' abord ko bëgg a rencontrer parce que ba léegi ñu dañuy wut d' abord solution. Mm-hmm. parce que lu ñu bëgg rek mooy étudiants yi ñu mën a delluwaat d' abord si université yi. te loolu mënu am tant que état du Sénégal d' abord honoré mooy d' abord fay dette bi ni dans l' immédiat mënul fay dette bi yëpp. mais na am lu mu xam mais qu'en est-il de ces 7 milliards 700 yooyu nga xamante ni jotoon nañ ko euh, voté ces lois de finances rectificatives bi euh, loolu aussi fan la mujjee. actuellement mën nañu jàpp ni ka am na 4 milliards et quelques yoo xam ni état du Sénégal moom la décaissé woon waroon ko génnee pour joxe ko ñu nga xam ne mooy chef d'investissement privé yi. ku nekk déglu na ku nga xam ne mooy porte-parole di KIDOPES muy monsieur Daoud Diop ñu koy nuyuwaat bu baax a baax moom indi si ay leeral yu bare bare ñu jàpp ni somme boobu nga xam ne moom la ñu jëloon pour décaissé ko pour. dugal ko d' abord si dette bi somme bu dana ko wàññi ba mu des un milliard et quelque te kenn xamul somme boobu mënu wàññi kenn xamul fan lañ ko dugal ba léegi ñoo xamul. Mm. mais loolu dañu jàpp ne rek diggante état la ak chef de déclassement privé yi ñun dañoo moom mooy am du dal si kaw kenn ku du kaw étudiants yi ñun d' mm-hmm. lu nga xam itam mooy jàpp na ni cursus scolaire bi ak itam li nga a formation de qualité bu nu war bi am suñ ñu réglé dara suñu kaw ñun looloo tax ñun ñu jug encore une fois di alerter te li nu jàpp ni su fekkee ne en tout cas autorités yi ñoo ngi ñuy déglu te xam nañ bu baax baax lu xew mooy lu nu gën a njëkk def ñoom lu nu waroon njëkk a def mooy d' abord discuter d' abord avec les délégués des étudiants mais itam jéem waxtaan itam avec responsable aussi des chefs d' établissement privé pour ñëm ba jéem a d' abord discuter ak ñoom xool nag ñu mën a def ba fay d' abord dette bi mais itam ñu bëri na fex d' ba sauver li nga xam itam mu may avenir des milliers d' étudiants yoo xam ni yaakaar na leen lu ñu xal mooy jàng bi. te yéen entre temps est ce que yéen